ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu ak te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñi ngi woon di ànd ak yéen di fàtt leen teendoo ak yéen ci lenn ci téere sëriñ bi radiallahu anhu ñu tolloon ak yéen ci téeram bi nga xam ne moom la tuddee maxaaliqu niiraani wa mafatixul jinaan bind bi ñu mujjee ànd ak yéen nag mu ngi jëmoon ci noon yi nga xam ne mooy nooni doomu aadama yi nga xam ne moo gën a fés euh, di noo ñeenti noon yoo xam ne euh, jullit bu ne war naa fexey euh, xeex ak noon yooyu ba duñu ko not ngir noon yooyu ñooy noon yi nga xam ne ñooy nooni doomu aadama bi waaye ñooy nooni jullit bi ñoo koy tere egg fépp fa mu bëgg a egg ci digganteem ak boroomam bi subhanahu wa taala waaye ci digganteem ak jaamu yàlla noon yooyu nag ñu tuddoon ci e, ñeenti noon yi nga xam ne ñoo ci gën a fees di bakkan ak adduna ak seytaane waaye ak li nga xam ne moo di bànneex e, ñu taxawoon ci bayit boobu nga xam ne ci la sëriñ bi laamdiya aljihaadul akbaru kama bihi anhum xabaru alxabaru nafsan wa dunyan summa shaytaanan main hawan fa kullaha aduwun la yelin mooy ñeenti noonu yooyu nga xam ne moom lañ doon tudd léegi léegi nag noonu yooyu ci ne am ngànnaay loo xam ne moom ngay xeexe ak jaam bi waaye moom ngay xeexe ak doomu aadama bi ngir not ko waaye it ku ne am kaso goo xam ne boo ko ca tàbbalee ba tëj ko bu booba loraange dootul mën a jóge ci moom di jëm si ci yow kon tey foofu la ñuy continuer ak yéen leeral leen noon yooyu seeni gànnaay waaye it leeral leen kaso yi nga xam ne mën nañ leen cee tëj ba du mën a gàllankoor doomu aadama bi ci digganteem ak borom bi subhanahu wa taala moo tax sëriñ bi doon continuer di wax ne lil kulli sijnun wa silahun yu'lamu fa adxilu wa kassiru fa taslamu nee na ñeenti noonu yooyu mu la tuddal de képp kenn ci ñoom am na ab kaso am itam ngànnaay loo xam ne moom lañ ko xameel waaye kon nan ngay def fexeyal jël ko moom noon bi ci boppam dugal ko ca kaso ga waaye fexey damm ngànnaay la nga xam ne moom la yore bu ko defee di daal di mucc kon la leen di musal ci benn noon bu ci ne ci ñoom mooy nga fexey ba damm ngànnaay la mu yore ba du ci mën a du la ci mën a songe waaye itam nga fexey ba tàbbal ko ca kaso ga nga xam ne moom lay bañ soo ko ca tàbbalee soo ko defee ah, loolu boo ko defee da nga mucc moo tax sëriñ bi ne lil kulli ñeel na képp kenn ci ñoom noonu yooyee sijnun kaso wasilaaxun ak ngànnaay yoon la mu gog deef na ko na ko ko xame fa adaxilu kon na leen tàbbal ca kaso yooyee nga xam ne mooy kaso yi lay musal ci ñoom wa kasiru te nga dam seen ngànnaay yi nga xam ne moom la ñuy yor fa tas la mu ne na soo ko defee da nga ah, da nga mucc léegi nag muy ñëw di wax kenn ku ne ci noon yooyu ak Euh, kasom ak ngànnaay li nga xam ne moom la yore mu ne fa nafsu bakkan bil joxi tawili tusjanu bakkan li nga xam ne moo di ab kasoom mooy al joxu tawil mooy xiif bu gudd maanaam xiif bu yàgg moom la bakkan di bañ kon kaso gi nga xam ne moom la ñuy tëje bakkan mooy di fexey muy bañ a regg di fexey di bañ a def ci sa biir ba biir bi regg su ko defee bu fekkee ne biir bi reggul rek bakkan bi moom langa nga xam ne moom la bëggoon di bànneex du ko mën a am kon bakkan euh, euh, li nga xam ne mooy kasoom mooy euh, xiif bu yàgg ndax ku ne xam na ne doomu aadama bi bi ko suñu borom bi subhanahu wa taala bindee def na ko lu ne pour bëgg mu mu ne ko alastu bi rabbikum ndax duma seen borom Euh, yaakaar naa booba euh, xissa bu gudd a gudd la euh, nga xam ne ñi ci bëree bëri bu leen suñ borom laajaan bu ñuy doog a bind bakkan yi bu leen leen ndax duma seen borom leneen lañ koy wax waaye bil suñ borom bi subhanahu wa taala xiifalee bakkan yi ba mu wëlbatikoo laaj leen ni leen alastu bi rabbikum ñoom ñëpp dañoo wëlbatiku ne balaa aha kay yow yaay suñu borom te fo boobu suñu borom bi subhanahu wa taala li mu jëfandikoo mooy xiifal bakkan yi bi mu leen xiifalee euh, ñu wëlbatiku la la nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala doon sàkk ci ñoom ñu wax ne ko yow yaay suñu borom ñu wëlbatiku wax ko ko kon loolu day tegtale ne euh, bakkan moom li nga xam ne moo koy tax a topp suñu borom bi subhanahu wa taala mooy euh, dugal ko ci ab kasoom te kasoom mooy lan mooy xiifal ko moo tax mu ne fa nafsu bakkan tus janu def na ko tëj bil jonge ci xiif bu yàgg wama laha déet di ko ñeel xaydun ab tënk yonlanu ba beef na ko bira si lu moy xiif bu yàgg kon loolu mooy li nga xam ne mooy euh, kasoob euh, bakkan amma silaaxuha daal ngannaayam moom bakkan allazi ba nga xam ne xattam naw dana tere bihi ca moom almutiyon topp suñu borom subhanahu wa taala min hudan ci anjub pasibaon mooy regg ne na euh, bakkan day li nga xam ne mooy ngànnaay li nga xam ne moom lay xeexe ak doomu aadama moom lay xeexe ak jullit ba koy teree jaamu suñu borom subhanahu wa taala du dara lu dul euh, regg nit ki saa boo xamee ne regg na yi nga xam ne moom lay gën a soxla mooy nelaw li nga xam ne mooy gën soxla mooy tëdd noppalu yooyu rek la uh, doomu aadama bi soxla su uh, su reggee moo tax kon uh, ngànnaay li nga xam ne moom la bakkan di xeex ak doomu aadama bi mooy regg saa boo reggee jàppal ne moom yow moom sa bakkan mën na la waaye dugal songe na la li nga xam ne moom lay songe ku mu bëgg a dox sa diggante ak yàlla waaye moom lay songe ku mu bëgg nga bañ a jaamu suñu borom bi subhanahu wa taala moo taxoon sëriñ bi radiyallahu anhu uh, boo demee ci xasida kun man mi ngi fay dénk ñi nga xam ne ñooy sàkku xam-xam di leen wax ne fala ilmu la yonta liman yaxsha tawa bal rabbuna abdan saburan yulhimu na ngeen xam ne xam-xam day duñu ko jox ku dul ku ragal ab xiif waaye xam-xam suñu borom subhanahu wa taala jaam bi nga xam ne dafa mën a muñ te nungoo muñ rek moom la koy jox ci euh, ki nga xam ne mooy buur bi nga xam ne moo tuddoon Najaashi te nekkoon Xabasa am na addiya yoo xam ne jëloon na ko doon ko yut yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu koy yut yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf caa boole woon ab docteur waaye docteur bu ba mu ñëwee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf koo delloo ñu laaj ko lu tax mu delloo ko yonente bi ne leen nahnu xawmun laa nakulu illa iza najoo wa iza akalna la nashba ñun day aw nit lan ñoo xam ne du ñu lekk lu dul ne dañoo xiif te saa bu ñu euh, euh, euh, itam du ñu lekk ba ba ba regg waaye dañuy lekk loo xam ne mooy li sëriñ bi di wax ne maa yu xaw yu sulba maanaam loo mën a téye sa bopp ba am kattanu mën a jaamu yàlla yonente bi uh, alayhi salaatu wasalaam ne na lool rek la ñuy yem kon uh, li nga xam ne mooy uh, ngànnaay li nga xam ne moom la bakkan di fexe ak doomu aadama mooy di ko fexey fexey ba mu regg rek kon saa boo reggee xamal ne sa bakkan moom du songe na la ngànnaay li nga xam ne moom la amee moo tax boo demee ci Munawwir sëriñ ba ma ngi koy wax ne kon nafsu bakkan in addat ndeem jalgatina alayka ñeel la fa joxe nang ko xiifal euh, lak euh, taliinu kon dana nooy lakka ñeel la bila azan ci lu dul lor wa wajaañ akub euh, akub akub mitit moo tax mu ne laa tudxilil taama fi batnika min gayri majaatin tasix lam amin nee na bul dugal sa biir aw ñam li fekk fii ko nee na soo ko defee day da nga kon nee na bakkan bi saa boo xam ne bëgg na laa jalgati rek bëgg a dox sa diggante ak jaamu yàlla na nga ko xiifal nee na soo ko xiifalee rek euh, day daal di nooy euh, bëgg topp la ci bëgg-bëgg bi nga xam ne moom nga bëgg muy topp sa borom bi subhanahu wa taala moo tax mu ne bul dugal ci sa euh, sa biir mukk aw ñam li fee xiifoo te saa boo xiifee booy lekk bul lekk ba regg nee loolu de soo ko defee da nga wér waaye da am ak cawarte ngir mën a jaamu suñu borom bi subhanahu wa taala wa sijnu dunya kasob uh, adduna uzlatun mooy beddeeku beru bi ilmin ànd aku xam wa amalin ak xam-xam li wajhi moot yi ngir yàlla mi nga xam ne mooy maye alfahma ak dégg li wajhi moot yi ngir yàlla mi nga xam ne mooy joxe mooy maye alfahma ak dégg amma silaaxuha ndaal ngànnaayam moom adduna allazi ba nga xam ne tubiidu dana alage bihi ca moom fa huwa moom almuxaalafatu mooy jaxasoo fii gayri mufiid ci lu amul benn njariñ kon adduna moom li nga xam ne mooy euh, ngànnaayam moom adduna mooy lan mooy jaxasoo bu bari li xam ne mooy ngànnaayul adduna mooy jaxasoo bu bari waaye li nga xam ne mooy kasoog adduna moom mooy lan mooy beddeeku beddeeku beru beru di jaamu suñu borom bi subhanahu wa taala waaye beru googu nag dafa am ay sart mooy nit ki nga xam ne dafa bëgg a beru di jaamu suñu borom bi subhanahu wa taala faw li nga xam ne moom lay def mu xam ko maanaam mu teg ko ci xam-xam bu leer nañ su ko defee bu bero mën a xam uh, lan la nan la war a jaamoo yàlla ak uh, lan moo ay farataam ak lan moo di ay sunnaam ba mu mën koo ràññee ba bu beroo mën a uh, taxawe jaamu yàlla ga na mu kon adduna moom li nga xam ne moom lay songe doomu aadama di ko ci dox diggante ak suñu borom mooy mu xeertal ko ci ak jaxasoo goo xam ne jaxasoo la goo xam ne amalu ko benn njariñ jaxasoo goo xam ne amalu ko benn njariñ bëggëb jaxasoo rek jaxasoo ak nit ñi euh, di duggante ak nit ñi fo aw xew am nga dem ca euh, yu mel noonu adduna moom mooy ki nga xam ne moo koy defloo nit ñi ngànnaay la loo xam ne moo koy xeex doomu aadama ngir topp gi ñu war a topp suñu borom bi subhanahu wa taala duñu ko def kon moom adduna loolu ngànnaayam la waaye li nga xam ne mooy kaso gi nga xam ne moom lañ mën a euh, euh, tëjee adduna moom waaye ngànnaayam liñ ko mën a damme mooy lan mooy beddeeku beru euh, di bàyyi xel suñu borom bi subhanahu wa taala waaye di jaamu suñu borom bi subhanahu wa taala ni ko bëggee te loolu itam mënuñu koo def lu feek euh, maanaam sartub xam-xam daju dajewu ci maanaam nit ki faw balaa mën a beddeeku beru di jaamu suñu borom subhanahu wa taala euh, te du ci am gàllankoor faw xam-xam day day day day day day day day laltaay mbiram su ko defee li nga xam ne moom la bëgg a taxawu man koo taxawee te loolu boo demee ci euh, xasida foqal bu kaw sëriñ mi ngi koy wax ci arkaanu bayti maa arkaanu beyti jamiil qawmi arbaatun biha yuassasu bunyaan alwilayaati sumtun wa juucun tawilun baadahu saharun wa uzlatun an shuyuuxin bil ishaaraat nee na ponk yi nga xam ne mooy ponki tasawuf de yi nga xam ne moo fondement li nga xam ne mooy tasawuf de ñeent mooy noppi ak xiif bu yàgg ak li nga xam ne moo di fok maanaam ñàkk nelaw guddi waaye ak beddeeku beddeeku goo xam ne ak topp yàlla rek moo la tax a beddeeku maanaam beru ci barab yi nga xam ne fa nga mën a beroo di jaamu suñu borom bi subhanahu wa taala kon loolu li muy tegtale mooy euh, tasawuf moom euh, faw nit ki bala moon bala mu koo mën a dund faw yee nga xam ne mooy noonu yee ñu tuddan fële noonu yooyu yëpp dafa fexey ba dugal leen ci seen kaso yi tëj leen ca waaye jël seen gànnaay damm ko su ko defee loolu mooy li nga xam ne moo ko ci mën a musal mu a dund li nga xam ne moo di eh, tasawuf moo tax sëriñ bi doon wax ne wala tuxaalib saaxibil saaxibal isyaani tawan wala tamit li si tuxyaani nee na bul jaxasoo mukk ak borom mooy suñu borom subhanahu wa taala borom mooy yàlla bul jaxasoo am moom mukk eh, nee na na ba eh, gis ñi nga xam ne ñooy jullit ñi dëgg-dëgg jullit ñi ngay jaxasoo ak ñoom waaye ñi nga xam ne ñooy borom mooy suñu borom subhanahu wa taala ñi nga xam ne dañuy mooy yàlla ñooñu bu jaxasoo ak ñoom mukk boo demee bay jaxasoo na ngay jaxasoo ak ñi nga xam ne dañuy topp ndigali suñu borom yi waaye ñi nga xam ne ñooy jullit ñi nga xam ne dañuy dimbalante ci seen biir waaye di faja fegalante ay lor seen biir moo tax mu ne wa xaalitil mumina bi taawun amma ala lazi ala al aza fala taawun ne na na ngay jaxasoo ak jullit ñi ci dimbalante waaye li nga xam ne moo di lor Euh, bul ci dimbalante ak ñoom mukk li nga xam ne moo di ay lor bul ci dimbalante ak ñoom mukk loolu boo demee ca Munawwir euh, ma nga ko fay eh, leeral bu baax a baax a baax euh, kon adduna moom tamit yooyu mooy ay mm, ab kasom kasoom waaye ngànnaay yi nga xam ne moom la mën a sonde nit yi tam yooyu kon képp koo xam ne fexe nga ba tëj ko ci kaso bi nga xam ne moo di kaso bi ñu koy tëj fexe euh, itam ba ngànnaay li nga xam ne mooy ngànnaayam nga xam ko euh, dam ko nee na loolu soo ko defee euh, da nga mucc ci ay pexeyam waaye da nga mucc bu baax a baax ci li nga xam ne moo di ay ay ay ay gàllankoor yi nga xam ne moom la mën a gàllankoor diggante nit ki ak doomu diggante doomu aadama bi ak suñu borom bi subhanahu wa taala kon dañuy taxawlu foofu di tuub bu baax a baax te jégglu di wàcc foofu kàddu gi di wax ne in uridu illa al islam ma stata'tu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh